nee sëriñ bi rekk a jar a nee na kenn defu fi dara nee na lépp mooma nee na ba tax na bokki taalibe yi nee na moo ngi nuy sant bu baax nee na cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee nee na waaye amul nag fu mu yem sëriñ bi nee moo ngi bëgg lool ci am nee samedi be wessu nee samedi be wessu mu ngi wax ne li ci dak la ko sëriñ bi defal nee waye da tan mbolo mi la ca gën mu bolé ko mom serigne bi nee na wax dëgg yàlla sëriñ bi nee na moom daal wax dëgg yàlla lu dul sant waru ko nee na nanu dët mël sëriñ bi nee na sunu buntu nag xam ngeen ko mooy sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou nee na mooy sunub sëriñ sëriñ bi nee moo ngi màggal sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou nee na te di ko nuyu te di ko siyaare nee na démb nee na démb sag bi mu ko defalati nee na ci xew-xew ba mu ñu amoon démb nee na yónni fa doomam ju baax ja sëriñ Abdul Xadim boole ko ak sëriñ Saaliw Silla nee na du chef de village su Jannatu Mahwa nee na boole ko enveloppe bu rëy nee na ñëw jox leen ko nee na toog ci seen biir yendoog ñoom sagal leen mel noonu nee na ku mel noonu sant ko rek nee na sant ko rek nu war ànd bi rafet na nee na bi rafet na nee na ma maa ngi ñaan nee na nee na sëriñ Cheikh nee na ko moo ngi ñaan li sa baay yéene woon ci liggéeyal ko maa ngi ñaan nga nee na moo ngi ñaan sëriñ Saliou Thioune eggale ko nee na loolu nag nee na moom wóor na ko ni ndéem ñaan na ko bëgg na ko dana am incha allah nee na te moom nun ñii noo koy ànde nee nanu way deng samedi bële ñu weesu nee na weesu maa ngi leen doon wax nee moo ngi leen doon wax ziar général ziar général bi nu ko war a nee na te wax na ko sëriñ Cheikh ba noppi. nee na boo ko jàppee. nee na sëriñ Cheikh nee na ko boo ko jàppee. nga wax ko ko. ma wax la foo may fekk.